mbokku téléspectateur Allô Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm comme niñ koy defee à chaque fois tey nag ñu ngi fii ci nga xamante ne moom moo di Sofra euh, Grand Standing euh, ci salle bi ñu naan ñoom i ñoomin ka fitness club ñoom nag dañuy faral à chaque fois di def seen ndogu bii nag nekk seen troisième édition ñu fas yéene dugg ci biir baalunte àq comme niñ koy defee chaque année daal di lekk ka foore comme niñ koy defee saa su nekk rek ndaxte nee naa leen saali dinañ fa pratique li nga xamante ne moom moo di sport waaye tamit dafay am loo xamante ne mooy ambiance bi familialité bi ba tax na ñoom ñu organiser li nga xamante ne moom moo di spécial ndogu comme niñ koy defee rek à chaque fois ma bamtuwaat ko noonu ñu ànd euh, élément ñoominkaay yëpp ak ki nga xamante ne moom mooy borom saal bi muy euh, coach Alioune Sarr ak ki nga xamante ne moom moo di jibi donc Moussa balaa loolu rek maa ngi leen di baaluwaat ak bu baax a baax ci weeru koor gi di ñaan yàlla nag mu jéggal ñu suñu ay bàkkaar nangul ñu suñu woor bu baax a baax a baax balaa loolu rek ñu dugg ndax sama mbokk njaayeen yéeg joobeen yi xam naa bëgg ngeen na lekk te kon nag les ñu dugg ci biir macha allah xool lan laa leen andil ak ci ñu dem tuuti lu mu bëgg a wax parce que tamit di wax ci borom baax bu mel ni moom dafa am solo quoi man nag moom moo tax may wax nag de tey looloo tax sax man a xaar ma jël micro bi c'est bien boo nag ñuy daje nii salle bi pratiquement c'est c'est une famille quoi donc des fois boo toogee entraîné woo quelque temps sax salle bi da lay manqué parce que salle bi suñu deuxième famille la quoi euh, le tuteur vraiment c'est à c'est à remercier c'est à féliciter mooy Aliou donc may leen ma ko loxo s'il vous plaît. donc au fait xam nga en fait daje bii day neex trop xam nga ñuy def ay ndogu de temps en temps mais dafa am solo tamit parce que ci weeru koor na nekk quoi qu'on puisse dire donc ci weeru koor na nekk léegi kenn ku nekk fa nga toog ah dama lay ñaan nga def benn fatiha lixlaas falaxi ak naas après nag ma continuer ko bisimilah. c'est bon donc euh, loolu ñaan boobu c'était c'était juste que. Euh, di di ci dolli nag di wax ne yàlla na yàlla yokk tawféex ci biir saal bi yokk gudd fan bi yokk parce que kenn ku nekk ci ñun bu kenn gëj a gis moroomam rek day am problème. bon c'est bien vrai que nag peut-être kenn ku ñëpp amuñu numéro kenn ku nekk si sunu biir mais comme groupe baa ngi fii tout ça on se retrouve c'est c'est vraiment extraordinaire donc fu euh, lu may mujjee comme mënumaa wax donc. waa ji daal laa bëgg ngeen félicité ma ko bu baax remercié ma ko te te teeleel ma ko ñaanalal nag teeleel ma ko ñaanalal parce que ñaanalal ma ko parce que tout le temps man moom wax dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire man loolu ñaanal man man lu ma koy ñaanal mooy ah bi day am yeneen ak yeneen yu gën a yaatoo yaatu yaatu et ci kaw ca kanam rek Aliou macha allah mes félicitations et te te ah bon baal la ñu ak yal nañu yàlla boole baal nangu ñu suñu weeru koor fekk ko ay ati ati ati macha allah. aywa jërëjëf. ñu ngi ñu ngi ñaan ñëpp ñu teewlu rek parce que daje yombul ku yàlla dogal nga am waxtu wu toll nii ci at mi ah nga war ci saafonte war ci beesalaat say sa yéene ñi la yàlla booleel ngeen seq teraanga ak seq jàmm kon tabaarakallaa occasion bu rëy la kon ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñu ñu teewlante rek di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di leen baalu xaq di ñaan yàlla subhaanahu wa moom mi ñu may xéewal ak sutura ba ñu fekkee ko daaw fekkee ko ren yàlla ñu ko fekkee at yi bëree bëri mu ànd ak yokkute ci biir ak biti bi jaahi rasulullah sallallahu alayhi waaye nag ñu ngi jiital ci nuyoo beeg ziyaara bi ki nga xamante ni yàlla dogal na mooy suñu lépp mooy suñu xarit di suñu frère di suñu lépp daal mooy alxaaji Aliou tabaarakallah ñu ngi koy nuyu bu baax ndokkeel ko nga xamal ni donte am na ñu am na nga xamante ni ñoo ko mag ci at waaye ñi jàpp ni ñëpp ay njabootam nañu waaw loolu la yàlla dogal waaye loolu yëpp mbaaxam moo ko wane ak oyofam ak yaatalam tabaarakallahu kon ni ma koy waxee rek man sama buntu ci saal bi mu ngi jaaree ci Moustapha mii nga xamante ni ñoo bokku dëkk sama jur moo ko tudd ñu seeq ay teraanga tey lépp lu ma fi am gannaaw yàlla ci moom la jaaree parce que yonent bi moo wax ni. man lam yas man lam yashkuri naasa laa yashkurillah ku santul nit doo sant yàlla kon moom nañuy sant gannaaw yàlla lu ñu fi am yëpp suñu digganteeg aliw suñu digganteek Jibi nga xamante ni moom ren dañ koy forcé déwén balaa déwén dafay takk jabar wala mu génn saal bi loolu moom dafay am moom waaw waaw jibi moom jibi Aliou fi ne jibi yow yaay kilifaam incha allah balaa at mi ñëwaat déwén dafay takk jabar wala ñu ñu abal ñu salle bi waaw. bon euh, dama siy dolli rek démb démb démb démb rek am na suñu ñaari gaay yoo xam ne fii lañu nekk muy góor ak jigéen. doon danoo takkante nekk nañ sax jëkkër rek mooy mama ak Ousmane. man mii maa yoroon man mii maa yoroon lépp sëy ba. waaw macha ak ak ak Ousmane. Mia ak Ousmane ñoom ñëpp fii lañ jógee. donc déglul ak Penda fii lañ jógee. waaw kon nag Jibi. moom tam fii lay jëlee. incha allah Njoogu. Arma. ak Evis. waaw comme ni ñu ko waxee rek démb. ak Socé waaw. démb démb ku ñu wax Mama Sanu. Bamba ak Pape Cheikh. Mama. mama Sanu mama Sanu Seck ma mama Sanu Seck démb dañ ko doon maye démb ñun ñi ñu ngi teewoon ci sëy ba parce que yàlla dogal na bàjjanam mooy sëy ak sama frère kon ñu ñaan ñaanal leen yàlla te ñoom ñëpp ñu ngi génne ci salle bi ba ma gisee démb jëkkër mama Sanu dama ni ko yàq kii de si biir salle bi xaal bi laa ko xamee kon nga yëg ni salle bi du du sport rek moo ñu boole waaye li ñu boole dafa rëy famille nañu loolu laay wax. fan yee la sama benn waaye ubbi suñu buntu kër Sall di sama xarit ma ne ko waaye sama xarit nga waaye man nag fii laa bokk parce que loolu la yàlla dogal parce que ah, yàgg nañu te boobu ba léegi mi ngi rafet kon tey lañuy ñaan yàlla mu gën a rafet waaye tamit ñu ngi ñaanal suñu mbokku jigéen ñi ñoom ñi nga xamante ni ñoo nekk ci salle bi dañu góorgóorlu te dem sëy parce que am na loo nga xamante ni kenn mënu si dëkk waaw jigéen ñi ñu ngi leen di ñaan. fekkee gis ngeen ñoo ngeen doyloo ci saal bi ñoo xamante ne doyloo ngeen leen ci saal bi ñu may leen ci saal bi ngeen sëy mu gën a yaatu rek waaw ñi nga xamante ni dañoo am benn bëgg ñaar ñi am benn bëgg ñaar ñoom it nañu góorgóorlu ñu wut ñaar parce que ki nga xamante ni mooy kilifa gi ñun ñëpp mi ngi mi ngi tax mi ngi taxawee ñaar kon dañ kaa war a rey si ñaar googu te ci saal bi la ko taxawalee kon nag moom it ñu ngi koy ndokkeel soxna si. di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla barkeel sëyam ba lépp lu mu am ak Aliou yàlla na ko yàlla barkeel ci barke alquranil azim waaye Evis ñu ngi lay nuyu yow it suñu jigéen bu baax nga dëgg sa yàlla soo ñëwee ci saal bi yaa ngi bége yaa ngi kaf yaa ngi ree ñu ngi lay ñaanal yàlla yow balaa déwén ci heure bi yàlla na yàlla may la sëriñ bu baax. bëri naa ay mu ànd ak tawféex ànd ak taysiir parce que xam naa ne yow faaw ñu wutal la góor goo xamante ni dina la mën a régler. comme Habib Habib. waaw incha allah dégg nga. ñu koy ñaanal bu baax xam naa ne dañuy yemale foofu kàddu yi rek. waaw balaa loolu ba ci kanam incha allah. waaw léegi balaa loolu rek ñu laaj la. waaw ndaxte gis nañ ne depuis daaw. Euh, comme ni ñu naan euh, fekkee déwén dañuy baaxantal ren ah. léegi depuis kañ yow nga commencé entraîner ci salle bi ak euh, ban njëriñ nga ci gis. waaw man de damay sant yàlla bu baax parce que sama ñëw ci salle bi yokkute laa ci gis parce que ren mooy sama ñetteelu weeru koor fi salle bi. depuis ba may sport entraîné fii ba léegi wax dëgg sa yàlla maa ngi yëg tawféex bu baax sama yaram maa ngi yëg ouverture esprit parce que sport soo toogee sa kër nga jekki-jekki sax sa xol naqari soo ñëwee ci salle bi sax na ngay mel ni naqar googu dafay raxasu ba set te loolu yëpp li koy maye mooy soo ñëwee ci salle bi non seulement ñi lay entraîné ñu ngi lay entraîné ak yéene nga gis sa bopp ci entraînement bi ñu lay defal macha allah ci say yaram sa wér gu yaram sa lépp dama jàpp ni salle bi moom symbole la bu rëy yëre yëre yi ci doomu aadama waaye symbole bu rëy la ci nga xamante ni mooy gox bi gox bi macha allah kon loolu moom gis nañ ñu ngi ci jëkk yokkute bu baax daal waaw ma yë rëccuwuñu lu ñu fi ñëwee waaw rëccuwuñu lu ñu fi ñëwee ci côté xam-xam rëccuwuñu lu fi ñëwee ci côté relation rek rëccuwuñu lu ñu fi ñëwee ci côté wér yaram loolu yooyu yëpp mi ngi daje ci biir sport bi macha allah ñu lay laaj rek sa dernière question euh, par rapport rek euh, salle bi ni nga ko gisee ak yan conseil nga xamante ne moom nga jox jeunes yi ak surtout ñi nga xamante ne dañuy faral di ñëw fii di ngir tàggat seen yaram. waaw li may joxe rek mooy xam-xam xam-xam dafa foor ki nga xamante ni dafa xëy ba fàggu ji xam-xam ñëw indi ko ah su la koy jox ki koy jox d'abord war nga xam li mu lay jox mooy lan. ak lu ma miin miin jibi su ñu xësee nekk ci tapi bi warat ma war a jël yenn détails yëpp teg ko fële xam ne actuellement dafa am lu ñu boole mais parfois ci biir ci biir entraînement bi dëgg la nag kaf-kaf la quoi mais parfois ci biir entraînement bi ah parfois nga xaw a gis koo xam day xaw a tarxiis te fekk na te su boobaa li nga xamante ni moom la lay jox amaana li mu ko war a jëlee dëgg doo ko jël parce que ñun dañuy yëngu ci xam-xam ñun bokk na ci respect ci xam-xam lay jox xam du toog ci kaw nga toog ci kaw day toog ci kaw nga toog ci suuf parce que bul xool jëmmam bul xool jib jibi célibataire la boo xam ne dafay taxawaalu rek non xoolal li nga xamante ni moo nekk ci moom mu la koy jox kon ñu ngi waat ñu ngi ñaaxaan ñëpp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci salle bi suñu xësee kii ñuy entraîné su xësee yéeg ci kaw tapis bi ba ñëpp taxaw nañu concentré wu jox ak li nga xamante ni moom la ñuy def ngir liñ ci yaakaar ñu mun ko am mais li ñoom li ñuy liñ ñuy transféré feeg dékkwuñ ko ni ñu ko war a dékkoo rek duñ ko mën a jël ñu ko mën a recevoir duñ ko war a recevoir loolu bokk na ci li nga xamante ni seetlu nañ ko deuxième bi beneen bi ci des it mooy nañu gën a booloo xam ni salle bi moom nañu am waaw ku am ku am ku am lu cher da ngay cher lu am lu cher da ngay cher ça mooy yow chaque fois war nga sa cofeel ci salle bi ak sa bëgg salle bi ak sa fonk salle bi war na chaque fois di di di euh, nga koy nga koy nga koy wane ci domaine yëpp nag waaw loolu daal seetlu nañ ko ci macha allah waaye waaye ñoom ñu leen di gërëm bu baax parce que saal yi na fi waaye néew na nga gis ah liñ fiy yëg fii ci saal bi néew nga nga dem ci benn saal yëg gis ko du du yaatuwaay bi du luxe bi déedéet mais xam-xam bi moo ci am solo waaw loolu moo ci am solo ko ñu ngi lay dem nag jàkkaarloog euh, imaamu célibataire yi muy jibi manga nekk fii kon suba. bañ ma jëlaale njóogu teg ko ci wet gi Habib nekk sama ginnaaw ngeen bañ di fi yàgg de. alors comme ni ma leen ko waxee woon rek ñu jàkkaarloog suñu imaamu célibataire yi ah mu nekk coach fii nga xamante ne moom moo di Ñominka fitness club coach ji bi ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyu mbokku internet yi ah ak lan nga leen di wax par rapport ak seen ndogu bi nga xamante ne euh, bii mooy seen troisième édition ngeen di ko def fii nga xamante ne mooy Ñominka fitness. waaw sant yàlla alhamdulilah. Eh, di wax ñëpp asalaamaaleykum. bu eh, eh, waxaat yàlla na biiram daw. célibataire bay wax waay. waaw asalaamaaleykum gars yi. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp. di leen jaajëfal. di wax kontaan bu baax a baax a baax vraiment. waaw ak tamit di ñaan yàlla def ñu yàgg ko. di ko def ay déwéni ay ati at at at dem ba incha allahu rabbi bërëb bi dem ba soppaliku bërëb boo xamante ni macha allah vraiment. léegi lan ngay wax euh, ñi nga xamante ne xamuñu euh, lien bi ngeen am yéen ak seen ñi nga xamante ne moom ngeen moom ngeen di coacher muy élément yi nga xamante ne dañ fiy ñëw euh, lan ngay wax askan wi ak seen ndogu bi tamit nan la demee. waaw Saal Saal dafa nekk loo xamante ni famille la quoi. parce que man wax dëgg yàlla comme euh, fan yi nga xamante ni dama xawoon tawaat rek man dama sentir sama bopp carrément damaa wéeti parce que saal dafa ma manqué dafa ma manqué trop trop sax ba beneen ins bëggoon naa ñëw doxandu fii mais ens boobu fekk mu jar mënu ko ma ne garaaw bàyyi ma muñ rek moo tax li mu dee dee balaa semaine bay jàll jot naa fi jaar parce que xam nga rek buñ nee saal du question client yi ñëw nga jël xaalisam def lu muy def après gars yi ñibbi entente daf fi am quoi. entente daf fi am parce que boo duggee fii déjà doo xamee kuy coach doo xamee kuy client yaa ngi comprendre ñëpp dañuy booloo doon benn quoi sûrement que fa ngay ràññee coach bi mooy tey bu yéegee ci kaw podium bi ci nga xam ne kii kat mooy coach bi. mais da ngay gis carrément tey jii Aliou day nekk ak gars doo xam nax Aliou coach la man tey damay nekk ak doo xam ndax coach la moo tax vraiment affaire bu rafet la quoi. et puis aussi tamit ñaan naa tamit euh, Sénégal ba mu daj. ñu jël exemple su maanaam comme tey jii lu ñu def nii quoi parce que bi mooy suñu troisième édition te ah ci samay kii mosuma dégg benn saal ne kat ñun def nañ ndogu wala du genre wax dëgg yàlla moo tax lii nii tey mii damay ñaan yàlla gars yi roy su ñun et puis may wax benn affaire aussi tamit loo xamante ne daf ma mës a dal gaa yi déglu ma quoi gars yi déglu leen ma dafa amoon euh, benn bës am benn saal bu ma wow foofu léegi ma waxtaan ak waa ji waa ji ne ma est-ce que di nga mën a ñëw liggéeyal ma ne ko loolu incha allah rabbi dinaa ci xalaat mais lu ñuy wax yëpp waa ji mu may forcé mais jour bi nga xamante ni ci laa waroon dem mbuur pour wax ak waa ji mais ba demee ba d'accord ba ma ñibbisee jour boobu su ma la matin laa fa demoon quoi mais soir bi ma war a sangu ñëw saal. mais dama song ba si yàgg rek sama rongoñ commencé tuuru parce que tax sama rongoñ commencé tuuru parce que mënu woon fii ginnaaw quoi man mënu ma woon fii ginaaw léegi ba ma toogee ba si yàgg ma xam ne carrément su ma demee salle bi dina ma manqué trop wallahi azim ak koor gi ma koor barki Seydina Muhammad ci douche bi laa nekk di jooy ci douche bi laa nekk di jooy ma toog après waxtaan ak kii mais après malheureusement li def bon mujj ma delluwaat ginnaaw quoi wax dëgg yàlla affaire boo xamante ne marqué na ma trop trop trop trop sax trop. waaw moo tax nag lu may wax gars yi nañ gën a suudewu rek gën a booloo te ñu naan mbooloo mooy doole quoi vraiment. ni ngeen ko gisee rek sànq ñu ngi woon di wax ak euh, coach ji bi ñuy faskee yéene jàkkaarloo ak coach Alioune Sarr muy euh, euh, borom saal bi léegi su ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga présenté waat ci ñi la xamul ah. suñu mbokk internet wu aloo Sénégal yi. Euh, waaw maa ngi la ñuy sant Evis di sant euh, waaye Allô Sénégal. Mhm. di ko sant si teewaay bi chaque année noonu lay def ñëw. Euh, teewee si affaire bi filmer ko pour ñëpp mun ko gis seetaan ko waaw maa ngi leen di gërëm maa ngi tudd Alioune Sarr coach Alioune Noir. Hmm. macha allah ñu gis euh, seen ndogu bi yaatu saa su ne bii mooy seen troisième édition chaque fois saa bu ngeen wootee mu ñëw est ce que mën nga ñu expliquer un peu euh, relation bi ngeen am ak seen client ba tax na chaque fois rek mu demee nii. waaw donc relation bi c'est lu yàgg la. am dañuy naan lu yàgg dëgg la yàgg na lool dañ ñàkk ba nekkatul euh, affaire de ñëw saal entraîné na ñibbi donc famille la chaque jour parce que booy xool semaine bi chaque jour ñu gisee donc dimanche rek des fois wala samedi ak dimanche lañ dul gisee kon mun naa ne famille la daal lii ñuy def nii booy xool ñëpp a si participer nekk loo xam ne ñu ñoo ko génnee suñu poos donc ñi fi teew ñëpp a pour mun a ameel avènement bi te bés bii moom mooy troisième édition bi lool nag Mm, di kontaan si geste bi. léegi coach sànq maa ngi doon dégg ci yenn témoignage ñu ne salle bi euh, jot nañ fi am sax ay couple yi nga xamante ne euh, dañ fi dañ dañu takkante seen biir macha allah donc xam naa ne fu mu nekk nii njaareel yi moom dañoo aye te yow nga tijju ko yàgg sa soxna nan nga gisee loolu noonu ax par rapport ak nit yi nga xamante ne dañuy jël di diaboliser salle yi naan par exemple salle ay caaxaan rek moo leen fa yóbbu lan nga leen di wax tey. waaw loolu moom dinaa si sawara a tontu parce que des fois léeg-léeg nit ñi dañuy réere si mbir di jàpp ne saal euh, yëfu caaxaan kese fa ne te du ay te loolu loin de ça nekkuñu si loolu sax donc jaamu yàlla la ak liggéey pour mun a barkeel sa euh, jàppale sa njaboot kon lépp loo xam ne yëfu caaxaan la euh, yaakaaruma mu nekk si saal ak si yeneen sax waaw parce que booy xool du ñun kese fii ne am na yeneen coach yu fi nekk comme coach soose donc moom xam na bu baax si lu ñuy wax donc liggéey la jaamu yàlla te yaakaar naa si li ngay liggéey di si tedd di si dimbali sa njaboot di si dundal sa njaboot yaakaar naa loolu amul ay caaxaan boo siy dugal di kontaan si loolu parce que lu la moo lay wan ne du jëf caaxaan parce que mbooloo buy dajee yàlla boole ñu ñuy ñuy gisante ba yàlla may may ñu sëy di si am kon loolu lu lu lu baax la waaw ah, yaakaar naa loolu lu baax la parce que man maa ci jiitu di sant sama soxna mu ngi may taxaw bu baax a baax a baax vraiment jàpp ma bu baax di sant aussi sama gars yi fi ne Jibi Tafa Arma waaw ñoom awuma seen sant amuma seen sant parce que ñu ngi siy taxaw bu baax ñoom ñu ñuy sonnee si saal bi sax man sonneewu ma ko wallaay ak njóogu waaw ñu ngi siy sonnee man sonneewu ma ko donc tey bu ma sañoon ñoom tamit yàlla def ñu jóge ci wàllum célibataire bi dugg ci ñëw ci marié bi am na ci solo lool waaw vraiment. léegi ñu lay wax laaj rek sa dernière kàddu ak lan ngay wax sa client yi macha allah ndax gis nañ lii nii. waaw donc toujours yal na yàlla may ñu koy teewe ay déwén yu bari bari bari bari waaw mu mu ñu pekk ñu tal ko waaw yàlla def daal nanguñu suñu koor nangul ko mboolem jullit waaw vraiment kontaan nañ ci trop nag trop ci daje bi di sant ñëpp nag. di kontaan si ñëpp waaw vraiment man kontaan naa si ñëpp parce que bañ na ko ba lii du xaalis bi moo ñu booleek nit ñi du xaalis bi donc euh, relation bi ñuy am nii rek moom moo ëpp xaalis bi téeméeri junni yoon waaw relation bi entre xamante bi nii rek balaa nga koy xam rek tey tey kenn si man wala kenn si gars yi nii rek génnoon dem ni gis fa koo xam ne nii sax xamul woon ne sax si foofu la ne bu ko gisee da koy taxaw eh mais coach looy def fii yàlla day yàlla bi ñu tiim xam ne ne boo moytu li mu doon lijjanti foofu sa waa ji moom mooy moo koy taxawu si loolu yëpp kon loolu moo ëpp xaalis bi donc xaalis bi loolu du dara xamante bi ak euh, joxante respect bi loolu rek moom mooy lépp loolu dara mënu koo fay daal di sant sama gaay yi yëpp vraiment di si kontaan trop nag. macha allah merci ñu ngi lay jaajëfal. léegi euh, sëñ bi nan nga def nan nga tudd. man Mouhamed. <laughs> Mohamed sa tur neex na macha allah. sant yàlla alhamdulilah. alhamdulilah yow célibataire nga wala marié. célibataire bu mag. bu mag waaw. ah Mohamed Mohamed Rousseau di wax lool. ah comme soosee sunu président kay. <laughs> e maa ngi ñëw ci soose léegi yow Mohamed. salaamaaleykum allo Sénégal maa ngi nuyu waa Ñomika fitness club. waaw di rafetlu tey teewaay bi waaw di nuyu kenn ku nekk sa tur sa sant. waaw di leen ñaanal yàlla gudd fan a wér tey dañoo bég tey dañoo kontaan ci teewaay bi ñu teew tey jii nii waaw du ñu def rek lu dul di leen ñaanal yàlla ndaxte tey jii fu kóllëre newul ngor du fa nekk waaw rawatina nag tey dañoo ñëw ànd ak ñun ci kóllëre ak ngor waaw ñu koy rafetlu bu baax a baax a baax a baax di leen ñaanal yàlla yàlla na ànd bi jëm kanam waaw yàlla na ànd bi jëm kanam ndaxte lii yombul nga nga nga xewle lu mel ni ñu ñu ñëw fekk si la yombul kon du ñu def rek lu dul di leen ñaanal yàlla ndaxte lépp ñoom la lépp ñoom la ñoom loolu rek laay wax man toujours rek dama naan lépp rek ñoom i kala ñu fi ñëw di fi entraîné si kon ñu def rek di leen ñaanal yàlla yàlla may leen gudd fan ak wér yàlla boole juboo waaw te lépp lu ñu bëgg rek ñu ànd seeg ñoom ba jusqu'au bu ñun loolu lañ fi nekkee ak ñoom di ànd ak ñoom ba jusqu'au bout loolu lañ fi nekk ak ñoom ànd ak ñoom ci yëg-yëg ànd ak ñoom ci accueil ba yàlla defal ñu jàmm ak sutura kon ñoo ngi rafetlu kàddu yi di ko ñaan di leen ñaanal yàlla ba déwén incha allah ñu koy teewee at at merci beaucoup. voilà di ñaanal Aliou yàlla yàggal ko fi moo jabaram. macha allah nit ñu yaatu lañ baax ba bëgg a dee ku ñëw salle bi famille la nous sommes tous en famille. di ñaan yàlla li troisième édition la yàlla nañ ko gën di def di def at yu bari te yàlla yokk yokk salle bi yokk lépp macha allah kontaan nañu merci beaucoup ñu comme comme ça waay euh, suñu caméraman bi sëñ Moussa nee na tëj affaire bi kon wasalaatu wasalaam ala ashrafil xalqila sayidina Muhammad yàlla nañu yàlla may ñu teewe ko ay ati at ñu mën ko fekkee koori déwén incha allah yàlla baay ñu fi ñu fekkee ko jàmm sans oublier aussi euh, di wax rek si début sama discours bi sans oublier borom saal bi nga xam ni gàccangaalaama lépp moom la muy di Aliou waa baax koo xam ni sawaay wax dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire félicitations à lui quoi macha allah parce que lii lépp moom moo ko waral kon nag yàlla nañu fi yàlla bàyyi ba déwén ñu fekkee ko te tal ko amin yaa rabal alamin yàlla nangul suñu weeru koor ba déwén ak jàmm aywa te tamit di ñaanal tamit euh, waa Allô Sénégal ca kaw ca kanam ak sunu caméraman jërëjëf jaa ngeen jëf yaa nañu teewlu ñun ñëpp nag ñu ñaan ko teewkaat yi bari mu ànd ak yokkute bi ñi si def seen àll yëpp yal na yàlla barkeel ko ak bismillah léegi nag ñaan nag wuy ma kuy ñaan borom bi na ngay torxlu ci kanamam nga xam ne na ngay ñaan pour mu may la waaw kon nañu nañu kii bismillah aousubillahi min shar bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta anhum ghayril maghdubi alaihim waladdallin allahumma innaka aminun min kulli shay'in wa kullu shay'in khaifun minka fa ya aminuka min kulli shay'in aminna ma nakhafu an azir ya latif ya latif ya latif ultufina fi umurina kulliha kama nuhratna fi dunya ya sattaru ya sattaru ya sattaru ya sattaru ya sattaru ya sattaru ya sattaru واستر لنا بستر الذي سترت به على ذلك واستر لنا بستر الذي سترت به على ذلك فلا عين تراك ولا ينتصر إليك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بحق وبالسر وبكمال اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوة الأرواح وشرابها الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم في كل وقت وحين subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuuna wa salaamun fi dunya wa salaamun fi laaxira wa salaamun alaynaa wa alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin amiin